parce que gis nañu bi nga génnoo benn bokk yaakaar euh, ñu bëri sax yaakaaruñu ne di nga am relation boobu ak Ousmane Sonko ñu gis ngeen euh, nuyonte saa fonte après gis nañ li ci topp muy relation yoo xam ne si ni yow yu yu yu yu am yu fluide yu fluide la en tout cas euh, gis nañu nga dem sol aussi bi mu nekk ci jafe-jafe pour yóbbul ko sa sa sa yaa ngi ko doon seeti ca kaso ba ñu ne la mënoo koo gis parce que permis bi ñu la jox euh, cachet bi ci nekk leeru dem nga ci Maham jàlloo démb Maham Diallo oui démb bi nga demee wala bërki démb bi nga demee foofu ci tribunal ci euh, procès Ousmane Sonko bi bind nga ko. Euh, sa relation ak Ousmane Sonko bëggoon naa ñu ñu ñu ñu ñu nga ñëw ci ak li fi jotoon xew bi nga nekkee euh, maanaam tete de liste de la coalition benn Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu génn lan moo lan moo fi changé ba ngeen am euh, maanaam sa relation xam nga suma relation ak moom même ba ñuy jàkkaarloo. Hmm. mësta doon ay attaque personnelles. Hmm. parce que ban du ma fonctionné noonu te jàpp naa moom du fonctionné noonu. musula musuma attaquer la personne. politique la woon ma ciy def li ma ci war a def am ci taxawaay bi ma ci war a am. voilà mais lanu tax ñu mënoon a àndaat mooy principe yi nga xam ne bokk nañ ko mooy dañu xeexandoo troisième mandat dañu tegandoo aussi ak ñeneen F24 ba ci fit bi nga xam ne ñoo ko tegandoo man ma ñëw assemblée nationale. ña nga xam ne ñoom laa doon campagnal te ñu ci bëri yàlla xam ne ne bu duma campagne loon du ñu seen poste député loolu moo tax Macky Sall ma tête de liste mais dañ naan dañ naan résultat yi ñu am ak yow. mosu ñu waroon nañ teg keneen xool. <laughs> nee nañu fi mu li bëri woon na. assemblée ah, nationale ñu naan dañoo timboo dañ ne ñëw. bu ñu fa tegoon keneen mm. doo naa 30 pour cent duñ ko am te ñoom xam nañ ko. Mm. bu baax a baax am nañ conviction boobu mais ñooñu ñoo ma doon attaqué ñooñu. Mm. bien sûr Macky Sall leen ko santoon keneen santu leen ko ñoo ma doon attaqué ñan ñoo doon défendre mais waaw c'est à partir l'opposition Pastef notamment mhm. voilà man avant ñu doon ay politiciens déglu rek avant ñu doon ay politiciens ay nit lañu mhm. ay nit la ñuy doon ba pare man boo ma defalee benn ma fay la ma fay la fukk voilà bon bu nekkee ci jafe-jafe ba noppi ñu tooñ ko nag boole ci mais lii sama warugar mooy ma jàppale ko mhm. te jàppale bi aussi mooy mooy jàppale suñu démocratie tout simplement noonu la demee. kon Ousmane Sonko pour yow dañ ko tooñ ah? mais dañ ko tooñ moo lañ bañ ma doon et pourquoi yow bu fekkee ne benn Bokk Yaakaar nee nga di nga gagné wóolu nga sa doole mais bàyyil ñëpp bokk amut seppi kii seppi kële encore une fois bu ñu ko defoon Macky Sall en 2011 2012 kon du doon président voilà man noonu noonu noonu lañ ko noonu lañ ko jàppee utiwaatuwuloo euh, permis de visite pour Ousmane Sonko pour nga dem seeti ko waaw ah permis de visite euh, <laughs> bien sur que permis de visite bu legal la boo xam ne bi amul benn amul benn problème. bi cachet bi dafa amoon waaw xam nga man du man may defar cachet wu administration. <laughs> wax dëgg yàlla. d'accord voilà te cachet bi quand même leer na ñeneen ñoo ngi fa doon dem bon ñoom ñoo xam pourquoi euh, ba ma demee seeti juge xam Diallo waa daw na dugg bureau am tëju wala bëgg ma recevoir ba ba enfin dugg na bureau am tëju sax waruma wax sax ne daw na bureau am tëju mais loolu sax du teraanga waaw sax da dul teraanga parce que man quand même maa doon ministre de la justice. Hmm. solee sama daal ñëw ba sa bureau mais nga ñëw une minute recevoir ma wax ak man voilà boo ma dul jox permis bi même boo ma bëggul expliquer sax hmm. voilà mais teraanga dafa baax loolu war nañ koo jàngalaat te nag amoon am nañ fi de grands magistrats voilà maa ngi koy maa ngi koy conseiller mu dem xoolaat ñooñu nañ doon doxale à l'époque fii woon nañ fi opposant bu nekk président Ablaye Wade woon nañ ko fi voilà ah? ah est-ce que bëgg na su boobu di ah, di recevoir yow mais ban risque lay ah, jël c'est un jeune magistrat. Ah oui àddina day continuer. Mhm. voilà ñoo fi toogandoo bu dee président Macky Sall moom pare na. voilà après yooyu yaay toogandoo fii ak say say compatriotes ak yooy donc def lu rafet ak teg ko ci yoon mooy li ëpp solo ci àddina surtout ci loo xam ne li yow xamoo fañ jëm. Mhm. du tey ñu ngi nii euh, am na juge yoo xam ne dañoo débuté l'État. Mhm, voilà donc euh, c'est un conseil c'est un jeune. vraiment ñu bañ a nangu politiciens yi di leen dugal ci yu dul kenn xamul lu doon te su toujours di di di di indi élégance républicaine dafa am solo surtout voilà am hauteur yow desal ci droit rek parce que yow lool loolu lañ la tege foofu mhm. pour ko wax droit bañ dugg ci yoo xam ne yi après yu xeebu lay doon daal. mais pour yow lan moo waral euh, acharnement bi nga xamante ni ñu ngi koy euh, def ci sa ci sa personne euh, nga dem bay bëgg di seeti un prisonnier na Sonko ñu la doo ko doo ko gis en tant que ancien ministre de la justice nga bëgg a gis benn juge d'instruction comme ni nga ko waxee mu lankal la ko pour yow lan moo tax tey ñuy acharné wu ci ci yow. da nga nekk menace wala lan la. waay waay man euh, gisewu ma ko noonu sax xanaa bon gàtt xalaat la rek voilà ak yu xeebu yu xeebu rek parce que man dañoo dañ ma commencé génne assemblée nationale man. man président Macky Sall daf ma daf ma génne assemblée nationale. illégalement fa la fa la commencé. Hmm. illégalement moom bañu ko defee Cissé Lo ak Mbaye Ndiaye moo ko njëkk a ñaawlu seen vidéo yaa ngi fi. Hmm. man mi jiite woon listam dafa ma génne assemblée nationale bien sûr xam naa lu tax. ba ma waxee ne dañu war a am loi boo xam ne day tere goro yeeg euh, frères yi ne ci gouvernement bi loolu ma fa génne ah leneen génne ma fa. mais ñu bëri nee nañu ah, euh, présidence euh, assemblée nationale nga soxla woon joxuñu la ko nga mer génn. waaw ah, mais ñu bëri ñu bëri idée boobu lañu am ba léegi ah. waaw mais loolu mun nga ko xalaat yow bu la neexee. non non non xalaatuma ko xalaatuma ko mais. Sénégal yu bëri loolu lañ doon xalaat xaaral ma wax la li mais tey bu fekkee am na leneen loo xam ne si ni sénégalais xamuñu ko tamit muy li la génne assemblée nationale dëgg-dëgg je pense que war nga ko mën a partager. ak mais li ma génne assemblée nationale mooy Benno Bokk Yaakaar ñëw un faux fausse réunion euh, ne ma dàq nañ ko loolu fan lañ ko mës a gisee fan nga mës a gisee ci réew yi ñu ne la ab député boo xam ne peuple bi moo ko élire ay politiciens génne nañ ko mustaam lu xeeblu la aussi mustaam hmm. mais man su fekkoon ne sax awma assemblée nationale nee naa leen fii Macky Sall nee na fii sama kër gi di ma proposer poste boo xam ne fii gisuma politicien mais bien sûr après l' assemblée nationale parce que na sama capacité aussi ban poste la proposé waaw ah, mais loolu dama ci dul sax tardé ah, non ma ci sax du ma ci attardé da poste boo xam ne bii nag ak gisuma politicien yu ñu fiy ñu ko fiy proposé yu bëri ñu koy bañ parce que dañ la bëgg ñu delluwaat wala non non non solo amul solo proposé na ma poste yoo xam ne yii day ànd la muy ànd nag ak yëpp ma ne ko baax na parce que lanu boole du postu président assemblée nationale su ma taxawoon fii jël seen rajo yeeg télé yi ne Macky Sall am na droit troisième mandat kon assemblée ngeen may fekk ma nekk président assemblée nationale daf ma ko jaralul jaralu ma ko c'est tout simplement ça xëy na nit ñi nag dañ koy gisee bon c'est pas possible non jaralu ma ko man Macky Sall ba may ànd ak moom chômeur la nekk fii këram Ablaye Wade nangu léppam léppam man ma nekk fonctionnaire international rang de directeur à New York jël congé sans solde ànd ak moom wër Sénégal ba mu gañe ma teg lépp nekk nekk euh, ministre de la justice am waxuma ministre de l' industrie nga xam ne y a des marchés wala de ministre de la justice amul dara amul budget amul dara mais dama jàppoon ne loolu poste bu am solo la ca fa suñu réew toll woon ñu pare fa voilà ma jóge fa ñu proposé ma yeneen i position mmh. Nations Unies ma ne damay toog sama réew mois de juillet Nations Unies proposé na ma poste yoo xam ne yii voilà au représentant la fii Afrique. nga bàyyi. non ma préféré des sama sama logique la des des Sénégal option laa jël. Mhm. toog Sénégal liggéeyal sama réew. donc man li may def dama koy def par conviction man alal taxumaa jóg di politique déedéet mais bu doon loolu rek bu dee alal rek ñu wuti ko feneen wala ñu defi leneen bu mag yi waxee dama bëgg troisième mandat bon. nga d'accord waaw nga d'accord boo d'accordul sax def ñu def ñoom ñëpp ne pat mhm. voilà mais loolu du man du ma ànd ak moom 2012 ñuy xeex troisième mandat wu Ablaye Wade ma ñëwaat 2022 naan moom war naa def deuxième mandat kooku en tout cas du man mhm. d'accord et, financement occulte tamit euh, débat la bu fi nekk ñu jëme ko ci Ousmane Sonko muy euh, euh, les